nekkee assemblée amoon na taxawaay bu mu ci ayib loolu moo tax tey mu jóge fa ñu continuer di ko woo di ko consulter loolu itam lu jar a souligner la alors en tant qu'ancien député justement honorable noo dundee coow li autour de la DPG ak débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne samedi la waroon am député yi mujjee koo dàq notamment le groupe parlementaire Benno mi nga xam ne moo ëpp doole ci assemblée ba euh, dajee jël dogalu dàq loolu tontoo ko premier ministre euh, ci li mu wax waaw dama ci am quand même euh, déception euh, faatu parce que euh, Sénégal vraiment texte yi leer na leer boo xam ne yenn problème yi waruñ koo jànkantool mm. euh, boo gisee premier ministre d'abord son groupe parlementaire groupe parlementaire Yewwi député yi génn ne premier ministre warul ñëw assemblée parce que règlement intérieur bi ñu yoree dafa faux mm-hmm. ensuite moom ci boppam Euh, bi muy tontu bataaxal bu ko député Guy Marius bind daal di ne moom du ñëw assemblée euh, parce que euh, règlement intérieur bi amul disposition yi war pour moom mu ñëw assemblée après mu am réaction député benn mbokk Yaakaar yi daal di jox seen bopp sañ-sañu annuler débat d'orientation budgétaire vraiment mm-hmm. dañ ci am déception d'abord ma commencé ci DPG bi DPG bi euh, premier ministre mënul jël prétexte su règlement intérieur pour bañ faa dem parce que euh, règlement intérieur encore une fois concerné wul premier ministre concerné wul gouvernement règlement intérieur document interne assemblée nationale la moom mooy tënk ni assemblée nationale di doxee donc daal di jël ne que comme article yi wax waxu premier ministre nekkul ci réglement intérieur man duma fa dem dafa mel ni da nga tuutil constitution mhm. parce que balaa règlement intérieur di ñëw nga xam ne loi organique la nekk en dessous de la constitution constitution ci boppam moo wax ci article cinquante cinq que premier ministre bu ko tabbee rek dafa war a dem assemblée nationale def déclaration de politique générale maanaam wax ak askan wi ne leen fii laa leen bëgg a jëmee yoon wii laa bëgg a jaar pour ñu yegg fa constitution moo ko tënk. te constitution kenn mënu ko euh, jalgati. bu fekkee ne yow mi nga xam ne yow yaay garant euh, loi yi yow yaay jalgati loi bu boobaa askan wi dañuy commencé jalgati loi ñu dem ci député yi député benn Bokk Yaakaar. daal di toog euh, samedi bi passé ne ñoom débat d'orientation budgétaire bi duñ ko defati parce que premier ministre daf ne du ñëw assemblée mais loolu caaxaan la. Mhm. caaxaan la parce que encore une fois débat d'orientation budgétaire constitution moo ko tënk. constitution moo ne da ngeen war a def débat d'orientation budgétaire ci deuxième trimestre su at bi euh, donc euh, bu bu fekkee ne constitution daf ko wax. loi organique relative aux lois de finances moom it ñëw waxaat ko yow nga ne duma def euh, du ma def débat d'orientation budgétaire parce que suma adversaire politique posé na benn acte vraiment dafa mel ni dëkk bi ñi ñu fal ñi ñu teg pour ñu jiite ñu dañ caaxaar caaxaane dëkk bi te bu boobaa dañuy am torop njàqare parce que bu fekkee ni dëkk euh, ñun dañ fi nekk ensemble euh, mun a bokk dëkk bi c'est parce que dafa am ay lois yu ñu tënk loi yoo xam daf ñu ne lii ngeen mun a def lii mënu leen ko def lii lañ leen jagleel lii jagleel lañ mm. bu fekkee ñi ñu jiite léegi dañ commencé di jalgati yoon bu boobaa Euh, dañu nekk ci dans un pays de non droit nit ñi di def lu leen neex. Mm. mais est-ce que tey sax du du indi ay ay non respect de de nos institutions parce que le Ousmane Sonko en tant que premier ministre tey bu yëkkatee euh, ay kaddu euh, ci li nga xamante moom moo di post bi mu def ci Facebook mu ne d'ici le 15 si toutefois que réglement intérieure bi dugalaatuñ ko ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy statut assemblée nationale moom dana def déclaration de politique générale avec. des les Sénégalais. ak li nga xamante ni c'est des universitaires est-ce que loolu du manquer respect li nga xamante moom moo di institution bi en tant que assemblée nationale bi nga xamante ni c'est la représentativité du du peuple. moom laay wax léegi au-delà de manquer respect institution sax manquer respect suñu constitution la. Mm-hmm. parce que constitution mooy charte bi gën a kawe ci réew mi. moom moo tax. ñu fal ko ñu ñu tabb ko tey parce que constitution boobu moo tax ñu fal président de la république. Mm-hmm. président de la république tabb premier ministre premier ministre tànn ay ministres pour ñu gouverner. donc mënuñu yow li nga xam ne moo tax nga nekk ci position bi nga nekk nga ne léegi dootuma ko respecté ti damay def lu ma neex parce que dem def déclaration devant un jury populaire xëy na déclaration lay doon wala meeting lay doon wala réunion lay doon mais loolu du déclaration de politique générale encore une fois parce que mm-hmm. article 55 daf ne dès sa nomination ah. le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale donc foofu rek lañ mën a defee déclaration de politique générale bu fekkee ne nag léegi ku mu neex mu dem dajale ay nit def ay déclaration bu suba mun nañ dajale ay nit daal di invoquer article soixante-dix constitution pour def déclaration de guerre dañ ko def yi devant l'Assemblée nationale il y a plein de chose yoo xam ne nekkul tout à fait mun nañ dem devant un jury populaire ñu def ay loi loolu mooy dérive loolu mooy dérive te dëkk waruñ ko inscrire ci ay dérive parce que li ñu d'accord la mooy suñu contrat social ñun ñëpp dañ ci d'accord pour mu mu mu mu tënk ñu loi yi dañ ñu tënk dañ ci d'accord c'est une c'est une soumission volontaire donc bu fekkee ne dañ dem ba ku nekk da ngay def lu la neex bu boobaa comme ni nga ko waxee. institution yi dañuy daanu duñu amati benn valeur kenn du leen respecté. est-ce que tey dañu yóbbu ci ci ci ci impasse bi nga xamante ni peut-être xawoon ko dund ci élection présidentielle bi avec euh, problème bi amoon entre euh, assemblée nationale ak conseil constitutionnel est-ce que tey naruñu jëm ci ci ci loolu ci assemblée nationale parce que bu fekkente ne les députés de de Benno Bokk Yaakaar dañu taxaw ne euh, ñoom du ñu adopté li nga xamante moom moo di débat d'orientation budgétaire ñi Ousmane Sonko warul dem assemblée nationale tant que euh, li nga xamante moo di règlement intérieur bi euh, saytuwaatuñu ko est-ce que tey duñu dugal ci benn impasse parce que budget bi nga xamante moom la ñuy voté